ñu ñaan nag ci réew mi jàmm yii fi xew nañ ci génn am réew li koy taal mooy ay caaxaan naxante warante ñàkk waxante lu dëgg day taal am réew réew bu la ko yàlla joxee nga yor ko fukki at ak ñaar yàlla lu am moom la qul lahumma malikal mulki tuuti mulki man tashaaw wa tanziul wa tanziul mulki mi man tashaaw wa tuizzu man tashaaw wa tuzillu man tashaaw bi yaddikal xayru innaka ala kulli shay'in qadirun moo ko moom moo ko yor moo koy joxe kum koy jox du ko tàggu kenn bu koy jël du ca xool ku xolam sedd mbaa ku kontaan mbaa ku kontaanul ngal la boo ko yoree fukki at ak ñaar toll fii wooteel jàmm joxe ko ci jàmm ki ko war a jël jël ko ci jàmm Sénégal jëm tanam leneen lu dul loolu fitna lay yee al fitna alfitnatu alfitnatu naaima naaima laana allahu man xay sahaara man xay xasaha fitna ma ngay nelaw yàlla rëbb na ku ko yee wa taqu fitnatan la tusibanna lazina zalamoo minkum xassa te nee na fii réew mi toll ku fi faatu ki ko yàlla dénk ki ko yàlla dénk bu ëllëgee yàlla moom la koy laaj ndax xaddis la ndax xaddis la bu wér kullukum raayin wa kullukum mas'ulun an raiyatihi yowm alqiyaama te moom moom xaritam la ma yéene ko jàmm bëggal ko jàmm bëgg ëllëgam dàq junni yoon tayam kon nag na góorgóorlu def li war a def def li mu war a def te génn te génn ci yii ñu koy dugal du dara ay caaxaan rek la te bari na ñoo xam ne bari na ñoo xam ne bu seeni pexe juboon démb te du ci jot tey kon jot na ci te fii mu toll isa tammal amru badaa naqsuhu isa tammal amru badaahu naqsuhu nee na mbir bu matee rek day tàmbalee wàññi ko <coughs> nga wax gone gu tuuti jóg ngay kilifa ak réew mi gone gu tuuti jóg xas la ŋàññi la saaga la sa c'est parce que li la yàlla joxoon dañ nee na ko roccet boo ko yëgee am na boo ko yëgee am na kon nag mi ngi koy ñaanal jàmm yàlla defal ko jàmm mu dellu si waat xelam te bañ a déglu ñi naan ko bu doon mbana li mu war a def def na ko li mu jëf ci réew mi kenn mësu koo jëf acte bu ndaw day effacé lépp na moytu loolu mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu